Les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du bail, c'est des commentaires gars. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Mbok Sénégalais, fait faut les maintenir 14 régions du Sénégal ak ñu won gël këpp ñu leen di jaajeufal ñu nekk également ci l'hôpital et sécurité du février na suñu borom fëgg seen bokk ñu wër ak jàmm ñu nekk ci kasso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire ak gën leen jëful moo leen fa yóbbu suñu borom gën leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dodo aduna suñu borom xare leen aljana fi aussi gars te yéexé on avance ensemble dans la magie des Sport TV, l'actualité en continu. Actualité bi nag dañuy waxtaanee ci li nga xam Sadio Kaiser Maléfique Mané waa Pro nak ñom ñoo génnee ap jàngat bo xam ne day jëm ci joueur yi nga xamné ñom ñoom lañuy gën utiliser lool nak di waral ñuy gëna gañu donc lool nak nek lo xamné dafa concerne aussi Sadio Kaiser Maléfique Mané bi nga xamné jamono ji mooy deuxième joueur yi nga xamné dinañ ci ay leral par rapport ak situation ki nga xamné nak moy donc handball bi suñu gaynde nak tay tey lay 19h30 GMT contre Égypte quart de finale nak Coupe d'Afrique bi handball donc ñu ñaan gaay yëpp ah ñu mëna a dem ñu dem sétal leen supporter leen aussi et que ñu xamné ne gaynde yi ñu lay représenter Juan Duhamel ah, donc Juan Juan Duhamel arbitre la woon ah ca France Ligue 1 Ligue 1 française dafa daal di am euh, donc AVC daal di ñàkk donc nekk loo xam ne perte la bu rëy ci football français moom nekkoon doon entraîneur arbitre boo xam donc arbitre bu gars yi respecté la woon pendant ce temps aussi li nga xam ne nag donc OM euh, plutôt OL Lyon finalement dañ koy jaay nga xam ne Textor gars yi nañ fi ëllëg daal dinañ ko confirmer ndax depuis boobu ba léegi avant championnat bi commencé dañu wax ne dañ koy jaay dañ koy jaay boobu ba léegi waxtaan am na lépp am na mais xamuñu lu tax mu finalisé wu mu finalisé wul ba léegi donc ëllëg lañ koy finaliser kii nag di euh, Gérard Piqué moom xam ngeen ne bàyyi na football loolu la wax bàyyi na arrêté na carrière am mais teewul nag dañ ko daan ñeenti match yoo xam ne da koy toog du football le gannaaw nga xam dafa may cadeau ñagas bu ñu dafa tek ci arbitre bi arbitre won seen match bi mujjoon ki nga xam nak pas donc qui di euh, Robert Lewandowski ou Lewandowski hein Lewandowski ak Lewandowski moom it hein, dañ ko daan ñetti match tax na nag match yi nga xam moy notamment match contre Atlético de Madrid mon mi l'attaquant polonais du ko daal di fekkee Léao nag ay wajurum genn nañ wax ma lañ ko wax démb ne mom fi ne nii tout prolonger contrat du Milan vu que ne dem ba 2024 mais tamit selon les dernières informations Param yi ne day changer air donc Barça beaucoup ci li nga xam moy club yi bëgg Leao et aussi en Angleterre notamment aussi le Paris Saint-Germain en France aussi ñu koy cibler euh, gi nga xam moy donc nak ki di Trippier donc mom nee bamuy ba Atletico jóge Madrid bam mu bam ba ak joueur yi pare na dem ci même ci garage bamuy jël otoom ki di Simon da ko fekk pour mu daal di koy fexé mu daal di toog bañ dem mais nee Simon xamone na ne deug dëgg lan motax boy bi bëggoon dem yonam ki di Rabiot mom nee d'accord na ne ci Angleterre donc ñu ko fa doon defal ay proposition pour mu daal di fay dem mais mom finalement rafa ne ba bi biir mu daal di xool ne waa toog Juventus dal ak Italie mo nek li gën ci mom par rapport ak progression bi nga xamné mom la nek ci jamono ji ni ki nak di Choupo-Moting mom lañ daal nommé mu nekk jour du mois notamment hein, donc du côté de euh, ben, du bain de Munich avec 75 des votes donc mon yi nga donc choupo du mois foofu et peut-être probablement aussi ca Bundesliga bi aussi taxaway bu ni mel lay am Sadio Kaiser magnifique Mané blessé Sadio Mané forfait euh, donc pour le premier match en tout cas pour l'équipe nationale du Sénégal donc gars yi ñu wax ne forfait donc forfait daal en tout cas pour le premier match de l'équipe nationale du Sénégal Sadio Mané wa fif pro ñoo génn euh, euh, ñoo génne bok ap jàngat bo xam dañuy jëm ci joueurs yi xam ñoo ëpp lañ leen di utiliser par rapport ak sen temps de jeu par rapport également action dangereuse yi par rapport aussi nga xam moy surmenage bi ñu am et ñom ci ni ne nañ ni Sadio Mané loolu la nekk victime ah. donc Sadio Mané bi nga xam ne ah, donc donc 93 matchs n'ont joué de la saison 2022 hein. mais également il a joué 2755 euh, minutes au total ça à dire qu'il deuxième jour le plus utilisé derrière Ribeiro en matière de contact Ming ci en matière de minutes en tant que jeune moi euh, Mbappé après il y a nga moy ne mooy Odminson aussi en matière de kilomètres parcourus Julian Nagelsmann nag également hein, donc moom blessure Sadio Mané bi euh, metti nako parce que tamit naa si def après benen ñangat ngeen xol aujourd'hui aussi li nga xamné Sadio Mané mi ngi koy indi ci club boobu moom itam hein, bokk na si ñoo xamné tay mom moom ni mboxoon leer na léna Sadio Mané bu wérul bu ressentir douleur du jouer bu yi yégée ni blessure bi tamit day ki du jouer loolu neen duñ jël risque parce que la santé du joueur mo gën lépp loo mënti gis Nagelsmann bi nga xamné nak donc mom moy dernier entraîneur bi nga xamné tay moom moo yor Sadio Kaiser Magnifique Mané donc tay gay nak buñu wax ñi utiliser Sadio Mané bari na donc plusieurs contextes aussi parce que de Sadio Mané c'est le meilleur joueur donc au niveau de l'équipe nationale du Sénégal et aussi au niveau de euh, donc euh, Liverpool Sadio Mané bi nga xam donc Aliou Cissé joueur bi nga xam mom la gëna utiliser depuis qu'il est là notamment ci match yi mu nga xam mom lay qui beaucoup na ci bok ñi mu gëna a utiliser ki nga xam moy Sadio Kaiser Magnifique Mané du côté également de Liverpool aussi Sadio Mané bokku na ci les joueurs les plus utilisés même Jurgen Klopp moment mi ngi doon wax naan Sadio dafa solo aussi parfois ñu koy noppal loolu nag di wane ne aujourd'hui Sadio Mané dañ ko utiliser au-delà même de ses limites et je pense que aujourd'hui aussi c'est une situation boo xam ne Sadio au vu de son âge war na gën di ménager war na gën également di xool état physique am donc gars yi nag jàngat boobu la ñu bëgg a wax ni Sadio aujourd'hui aussi est-ce qu'il n'est pas victime comme ni ko FIF pour waxee ci surutilisation bi nga xam ne mi ngi koy am en club et aussi en équipe nationale wala leen di laaj wala leen di abonné gars yi jaa ngeen jëf